wala hawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim mbokk yu tedd di ñu leen di nuyu beneen yoon di leen tatagal ci seen xalqa jotaayu fiq yu ci ànd ak yéen bés bu nekk di ñaan suñu borom effort yi yëpp jëmmam ji tax te mu dimbale ñu ba ñu bokk min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana yàlla bool ñu defaral suñu zaahir bool ñu defaral suñu baatin bi xurmati maulana rasulillahi alayhi salatu wassalaam ما زلنا معكم متناولين شروط الوضوء وإن شاء الله تبارك وتعالى سنختم هذا الباب هذه الليلة ñu ngi ak yéen ba léegi ci chartaay njàpp bu ko yàlla dogalee ñu tëj buntu boobu le tey inchaa allahu taala tuddoon nañu ne bokk na ci chartaay njàpp yu lislaam tuddoon nañu taklif muy mat mu këllëf tuddoon nañu yëgatiku deretu mbërëk ak deretu wasin tuddoon nañu laabuk ndox mi ak mëna laabalam tuddoon nañu it ndax ki nga xam ne tojom dafa sax ndax waxtu wi dugg charta la ci njàppam wér wala du ca charta li wér malikiyatu yi jàpp ko mooy du ca charta li kathirin min al ulama yi tuddoon nañu ne dañal lépp loo xam ne dafay tere ndox mi yegg ci cër ya charta la pour njàpp li baax tuddoon nañu it ndax daganuk ndox charta la ci wéruk njàpp walla du ca charta ñu waxoon leen wax yi ci am yépp ñi ne charta la ci ndax yàlla kenn du ko jaamu ci mooy ñii du ca sharta ndax jaamu gi jotewul ak mooy gi ñu tuddoo nit démb alqudratu ala isticmaali almaai min shuruti alwudui min shuruti jamii alibadati ne mën a jëfandikoo ndox sharta ci waruk njàpp waaye mën ak qudratu du charta rek ci njàpp waaye mën a lañ la sant chartaay war la ci mboolem jaamu yàlla yi bi ñuy ñëw ak yéen <clears throat> moom la ñuy mujjee min shurutil wudu'i mooy qiyaamul xadath yi ak toj taxaw maanaa bala njàpp di war day fekk borom njàppam toj charte bi charte wu jóob la kon képp ku toj lewut njàpp warut ci yow loolu nag dalil yu bëri rot na ci sunna rotit ci ijmaaw borom xam-xame ci sunna Seydina Buxaari rahmatullahi alayhi dana solo jëlee ci sayduna sufyaan mu ne amr ibn amir mu sayduna amr ibn amir nee na sayduna anas ibn malik nee na yonentu sallallahu alayhi wa daf daan jàpp ci bépp julli yatawadda inda kulli salaa nee na ma ne ma laaj anas ne ko kayfa kuntum tasna'un nu ngeen daan def yéen mu ne yujzi'u ahadana alwudu'u ma lam yuhdis njàpp li nga xam ne ku nekk ci ñun jàppoon na ko doy na feeg toj amut muy wane ne kon jàppaat warut feeg ak toj amut ñaareelu tegtal xadisu muslim suleyman ibnu burayda jëlee ci baayam mu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam julli na julli yëpp ba su fatxu makka ci benn jàpp muy julli juróom yi masxa sangam omar ne ko sayidna omar ne ko yow yonentu sallallahu alayhi wa sallam laqad sana'ta al yawma shay'an lam takun tasna'uhu tey de gis nañ la nga def loo xam ne mosoo koo def njàpp yëpp nga julli ko ci mm, julli yëpp nga julli ko ci benn jàpp maanaam yonentu ne ko amdan sanatuhu ya umar maa ko ci jublu booba mi ngi ñuy lu mën a nekk la ñetteel ba xadisu buxaari ji muy wax ne yonentu sallallahu alayhi ca atum xaybar ba ñu génnee ba yegg ci saxbaaw wa hiya adna xaybar yonentu sallallahu alayhi wa sallam jullee tàkkusaan lekk na fa saxaaba yi lekk ak moom ba timis jotee dafa jog galaxndiku ñoom ñëpp ñu galaxndiku julli te jàppuwut tegtalu ñeenteel mooy masala mi mën ngaa wax ne ijmaawu am na ci ibnu taymiyata rahmatullah alayhi dana wax ne man tawaddaa li salaatin salla bi dalika alwudui salatan uxra fa hada qawlu caamati salafi walxalafi walxilaafu fi dalika shaad nee na ku jàpp ngir julli njàpp loola mën na caa julli geneen julli gu bokkul ak julli gam ko jàppaloon mu ne mboolem salaf ak xalaf ñu njëkk ñi ñu mujj ñu loolu lañ wax mu ne ñu ci wuutee wuutee bu jadd qiyaas la mooy amul fu mu tege mu ne ndax xam nañ ci sunna soo xam ne am na tawaatur jógee ci yonentu sallallahu alayhi wa ne doonul woon waral ak njàpp ci képp koo xam ne julli na su bëggee julliwaat yonentu mosta waral ci kooka jàppaat sax na it ne yonentu bi sallallahu alayhi wasallam sax goo xam ne saxuk tawatur la yow ma arafa dafa boole tisbaar ak tàkkusaan moog jullit yi ay junne junne julli ci ginnaawam yàlla rek xam seen lim ba mu sëlmalee ci tisbaar ja dafa jog julleeg ñoom tàkkusaan jàpput ca diggante ba waxut kenn nit mu jàppu ca diggante ba kenn nit toxalut jëlee ci yonent bi sallallahu sallam luy wane ne beesal njàpp julli gu nekk luñ sopp la loolu la ibnu taymiya te wax mu ne it ba mu jógee arafa dem musdalifa it noonu la def dafa boole timis ak gee boole goo xam ne beesalul njàpp ca diggante ba ñeel gee moom mook jullit yamu àndaloon yëpp sallallahu alayhi mu ne mbooleem xadis yi sax ne yonantu sallallahu alayhi wa boole na ñaari julli xadis ya ca sax yëpp nekk ci saxiixayni moo xam xadisu sayidna abdullah ibnu umar la wala xadisi sayidna abdullah ibnu abbas wala xadis sayidna anas radiallahu anhum ajmaina yëpp li muy wane mooy yonantu sallallahu alayhi wa sallam moom ñaandoon ak moom bañ jullee julli gu njëkk jàppaatuñ ca diggante ba soog a julli jullik ñaareel ba julli yi nga xam ne yonantu sax na ne boole na leen yëpp mu ne wér na yi tamit ne yonantu sallallahu alayhi wa nim ñëwee ci saxiixayni ak e, maanaa saxi Buxaari ak saxi Muslim xadisu Abdullahi ibnu Abbas ak ndey Aïchatu ak ñu dul ñoom ñu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam daan na guddi njàpp loolu mu naafe laa guddi mu julli ca fajar ànd ak daan na nelaw bu naafelowaan guddi ba pare bu jógee julli ca fajar daan na wax ne samay bët dafay nelaw waaye sama xol du nelaw mu ne lii nag bokk na ci li gën a wér ci liy wane ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam daan na nelaw jóg julli ci njàpp la nga xam ne moom la jullee woon naafe la mu julli ca farata mu ne kon nan la ñuy waxee ne yonentu fa daan jàppal bépp julli xëy na ma ngay joxeñ xadis ju njëkk joojoo ñu ne yonentu sallallahu alayhi wasallam fa daan jàppal bépp julli waaye xadis jooje xadis ju wér la te it nelawu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bokkul ak ñun ndax yonentu wax na ne xolam du nelaw bëtam rek ay nelaw moo tax ñun suñ nelaw su fekkee ne dafa diis dafay yàq njàpp su woyefee nag moo xam gàtt na moo xam gudd na du yàqu njàpp donte wax nañ ni bu guddee te woyef sopp nañ borom jàppaat ibnu taymiya te mu ne sax na it ci saxiix ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam julli na tisbaar wafdu abdul qays ñëwal ko mu recevoir leen ba tax julliwul ñaari rakka gannaaw tisbaar ba takkusaan jot mu julli ko mu ne waaye diggante ba jul jàppu ca geneen jàpp kon daan na julli farata ci njàpp teg ca naafila tudu jàppaat daan na julli naafila ci njàpp teg ca farata daan na julli farata ci njàpp teg ca farata tudu jàppat lii yëpp ci menn njàpp mu ne jullit yi it julli nañ ci gannaaw yonentu bi sallallahu alayhi ci weeru koor ci guddi ci genn njàpp julli nañ ci julli yu bokkut ni ngeen xamee julli weeru koor mu ne jullit yi ci jamonoom it bu ñu jàppaan ci lañ daan julli feeg njàpp la tojut mu ne xaddis yi wér yëpp loolu la wane amul xadis bu wéradi walla bu lompoñ bu wane ne yonent bi sallallahu alayhi dafa digal julli di ñuy jàpp bépp ci bépp julli mu ne kon wax ji wane ne sopp nañ nit ki jàppal bépp julli ajoo na dalil ma ne xëy na bokk na ci dalil yi xadisu imam ahmad ji mooy xadis ji wax ne <clears throat> yaxya ibn xibaan al mook almazini mazin bani najaar jëlee na ci ubaydullahi ibn abdullahi abdullahi ibn omar mu ne dama ne ko ndax ara ayta wudu'a abdillahi ibni umara li kulli salatin tahiran kaana aw gayra tahirin amma huwa abdullahi ibni umar jàpp gi muy jàppal bépp julli moo xam mi ngi amee amewoon jàpp wala amewutut jàpp loolu noo koy tuddee mu ne ko haddathathu asma'u bintu zeyd ibn alxataabi anna abdallahi ibna hanza anna abdallahi ibna hanzalata ibni abi amir ibn al-Ghasil haddathaha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana umira bilwudu'i li kulli salatin tahiran kaana aw ghayra tahirin mu ne asma'u bint zeyd ibn al-Khattab nee na ko abdullah ibn hanzala ibn abi amir ibn al-Ghasil nee na ko yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dees koo digaloon muy jàpp maanaam yàlla daf koo digaloon muy jàppal bépp julli moo xam mi ngi amee woon jàpp wala ameetut ko woon falamma chaqa dalika ala rasulillahi bi loolu tiisee ci yonantu bi sallallahu alayhi bi siwaaki inda kulli salaa ñu digal ko muy soccu ci bépp julli au lieu muy bamtuwaat njàpp la te fekk njàpp laa nga fa ba léegi mu ne wa wudia anhu lwudu illa min xadas ñu sippil ko ñu wàccee ko njàpp lu dul ci toj nee na fa kaana abdullahi yara anna bihi quwatan ala dhalika fa kaana yafaaluhu xata maata abdullahi ibnu amar gis ne moom mën naa def loolu ndax am na ca kattan mu ne mu dëkkee loolu ba ni muy dee mu ne xadis ji nag isnaad ba am na ixtilaaf war naa mën a am isnaad nag ndax abdullahi war naa mën a am ixtilaaf ndax abdullahi mënta attan lu yonantu xattanut sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waaye xaafid rafetal na isnaadam xulaasa daal mooy am na ñoo xam ne ci borom xam-xam yi sopp nañu nit ki même su toj tojlewut mu jàppal bépp julli ibnu taymiyata nag li mu doon wax fi di wane tegtal yi mooy ne wér na ne yonentu sallallahu alayhi julli ne ay yoon ay julli ci benn njàpp kon nag cofeel gi walla sopp gi dafa laaj tegtal ñi nga xam ne nag ñoom dañoo wax ne julli gu nekk des ko war a jàppal même su fekkee njàppalu tojut mu ne wax jooju moom dafa wuteeg sunna mutawatir ani rasul sallallahu alayhi wa sallam wuuteeg ijmaawu saxaaba ñi nga xam ne dañoo toxal lu mel noonu jëlee ko ci ali nee na loolu saxut li sax jóge ci ali radiallahu anhu mooy lu wuuteeg loolu te mooy ci mooy li ñu solo jëlee ci yonantu bi sallallahu alayhi ak saxaaba yi ak ijmaawu borom xam-xam moo tax imaam Ahmad ak xam-xamam bu rëy ci athaaru saxaabati wa taabi'in biñ ko laajee loolu ne ko ki julli ci benn njàpp jullee ci juróomi julli yépp mu ne loolu dara nekku ci su fekkee ne njàppam yàquut mu ne ma zanantu anna ahadan ankara hada te foogu ne kenn mos naa weddi loolu su fekkoon ne su fekkoon ne wér na ne Aliyu moo wax loolu konoon imaam Ahmadu du waxee nii xulaasa bi daal mooy taxawuk toj bu toj taxawee bu toj amee njàpp dafay war bu toj amut njàpp du war ndax des koy sopp ñu beesal ko wala soppeesu ko wuutee nañ ci hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa <coughs> sallama wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنا من إلى الإسلام مع ترك المحال Travel Salum Jidda Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhamed Muntaha Sakho ñoo leen di bu mag bii di seen